day xamle mbërëg mbaa nga ne baax mooy jigéen ji bu tolloo ci jamono yoo xam ne ku ca masaa toll mën naa am ngay am doom yàlla day dogal rekk deret di génn ci ab sawukaayam nga xam ne wéradi waralu ko am doom waralu ko yàlla ko bind rek bu tolloo ci waxtu woowu di ko gis mën naa xong cooy ni nga xam ne moom la deret di xonge mën naa def tikk mel ni raxasitum yàpp mën naa xaw a gel puur lu ci nekk dana koy mel nga xam ne bu dee ku gone bopp lay génn ci moom des ko tuddee baax ni ki ko am juróom-benn at jëm juróom-ñeent bu dee jigéen ju màggee ba ëpp itam mel ni ko am juróom-ñaar fukki at jëm ci kaw ba tey lay génn ci moom des ko tuddee baax lu mën di génn ci moom rek nay jullee ko woor ak def yépp te bañ a faale loola waaye daal koo xam ne toll na ci rek fu jigéen di toll di am doom deret jee génn ci moom te jàngooro waralu ko am doom waralu ko deret jooju mooy baax daa bari àtte lool nag ci lislaam moo tax ñu koy jàngale ci téere yi loolu ñuy tuddee reegal muy baax daa am nuñ koy seete ci bu dee ci wàllu jaamu yàlla ak nuñ koy seete ci bu dee wàllu jigéen ju iddawu wala muy laablu bu dee ci wàllu jaamu yàlla gi moom deret ja bu ko see génn ñàkk gaa bari du ca dara daldi jeex fa saasa itam du ca dara du tee rek ñu tudde ko mbërëg maanaam ñu tudde ko baax ci wàllu jaamu yàlla nga xam ni jigéen ja war naa sangu ca ngaayul farata ba noppi itam bu fekkee dafa wooroon koor ga yàqu na bu dee nag ci wàllu jigéen ju iddawu wala jigéen joo xam ne dañoo jotee ak moom jotee bu aay ñu bëgg koo laab lu ba xam ëmb na ca am ëmb ca moom buñ ko dee seet ci laab yi nga xam ne moom la waa Maalik di topp bu deret génne ci moom ne sotee rekk daal di jeex fa saasa duñu ko tuddee ne gis na baax laab na benn yoon faaw rek bala ñu ko wàññi ne deret la tey laab ga ca topp ak laab la day yàgg ak moom lu toll ni bis mbaa boog lu sori ci bis na am bis mbaa lu sori ci bis gannaaw ba nag bu jeexee ñu door ne gisoon na deret laab na genn laab bu dee ci yoonu Maalik moom laab ya nga xam ne ñooy topp ci gis ga deret moom lay wàññi bu jigéen ji dee gor bu amee yetti laab yooyu ñu ne iddaam jeex na bu dee ku ñuy laablu it ni kii daa jote jote bu aay ñu war ko caa laablu ba tey noonu la bu dee koo xam ne bii yoon rek la njëkk a gis baax kon lu mu yàgg-yàgg ak moom du mën a ëpp fukki fan ak juróom nee nañu sax mën na ne sotee daal di jeex fi saasa waaye nag mën naa yàgg ak moom nag ba ci fukki fan ak juróom bu amee fukki fan ak juróom te jeexul nag na xam ne jàngoro la mu daal di sangu ca ngaayul farata te di def lépp ni ki julleeg woor ak joteeg ka muy sëyal ndegam soob na leen su fekkee jigéen jooje nag du boobu woon la ko njëkk a gis gis na ko gisati ko te fekkul mu toll ci ëmb kon dañ koy wax ne ko da ngay seet boo ko masaa gis ñaata fan lay am nga jàpp fan yooyu ba xam bu ko amee bii yoon dana jeexam du jeex su ko amee bii yoon tamu jeex nam daa jeexe mbaa agu ca sax ca fan yu njëkk ya daal di jeex loolu kon baax na amul luñ cay wax su fekkee nag am na fan yam daan am te taxul mu jeex nag ñu wax ko ne ko da nga ci yokk ñetti fan da nga ci yokk ñetti fan mooy da ngay toogaat ñetti fan ñoo xam ne li fekk deret jaa ngi génn nga jàpp ne ba tey ci baax nga nekk doo julli doo woor doo def dara ci yi ñi aaye ku toll ci gis baax teewul nag ñetti fan yooyu mu ci yokk bu amee benn rek mbaa ñaar gis ne jeex na te daal di sangu jàpp ne jeex na dañoo bëgg a wax rek ne ñetti fan yi moom lay wóorloo waaye nag mën naa am balaa ñetti fan yee jeex deret ji jeex su boobaa nag day jàpp ne jeex na waaye du ne daay dem ba ñetti fan yi ma waxoon jeex te fekk deret ji jeex li feet nag jigéen ji tolluwul ci ëmb bu gisee deret jooju lu yàgg-yàgg du mën a weesu fukki fan ak juróom niki bu dee lam xamoon ci aadaam mooy su ma saa gis baax day am fukki fan ak juróom mu jeex bi yoon bu amee fukki fan ak juróom te jeexutit day jàpp ne kon jàngoro la daldi sangoo koy def yépp ndax mënta ëpp fukki fan ak juróom su fekkee lam daa am jeex mooy fukki fan ak ñeent bi yoon moom fukki fan ak ñeent te jeexut benn fan rek la ca yokk bu fekkee daana am fukki fan ak ñett muy aadaam saa yu ko ma sa am jeex bi yoon nag mu am ko te jeexut ñaari fan rek lay mën a yokk nga xam ne kon lu yàgg-yàgg moom du mën a fukki fan ak juróom bu ko amee rek te deret ji génn na jàpp ne jàngoro la sangu tey jullee ko woor ak def yépp bu dee jigéen joo xam ne nag yoon yi mu weesu gis ci deret dafa yëmoowut fan ya mu am am na ci boo xam ne ba mu gisee deret ñetti fan la amoon am na ci boo xam ne juróom la woon am na ci boo xam ne juróom benn mbaa juróom ñaar la woon kooku buñ ko nee da ngay seet diir ba nga daa am jeexal bi yoon ba xam dana jeexam déet day seet lim ba ci gën a bari li ma weesu léegi daa mel ne juróom ñaar moo ci ëpp kon day jàpp ne aadaam daal juróom-ñaari fan la woon su amee juróom-ñaari fan nag te taxul deret ji jeex mu yokku ca ñetti fan niñ ko waxe woon léegi ci tegee ñetti fan muy fukki fan te taxul deret ji jeex it mu jàpp ne jàngoor la rek moom tey jullee ko woor aka def yëpp li ci ëpp jigéen bu ëmbee du gis baax moo tax sax ñu naa weer sàngam fóotuma ci di séentu ne kon dafa toll ci ëmb waaye nag yàlla mën naa def mu ëmb ba noppi te du ko tee gis baax boobaa nag moom la ñu àttee ba xam nu mu war a toll booy jàng aljawharun nafis sëñ bi dafa waxoon ku ëmb ba am yetti weer door a gis baax la dale ci yetti weer ba ba muy am juróom benn weer ñoo bokk àtte diggante boobu bu fa gisee deret muy baax mën naa yàgg ba ci fukki fan a juróom ba ci ñaar fukk waaye ñaar fukk moom mënu ko weesu su fekkee nag daa am ba am juróom benn weer la ca dale ba muy am doom bi gisee baax mën naa yàgg ak moom ba mat ñaar fukki fan ba ci weer waaye nag weer mooy yemukaay ba mënu koo weesu bu ñu nee mënu koo weesu rek bi ci àggee te jeexut tey jàpp ne jàngoro la tey jullee ko woor gannaaw bu mu sangoo mu des nag ba mu tàmbalee ëmb ba laata muy àgg ci yetti weer foofu dañ caa wute waaye wax ji gën a wóor mooy diggante boobu moom bu fi gisee deret da ko yemaleeg na mu daa gise deret te fekkul mu toll ci ëmb mooy fan yam daa am deretam jeex ba tey say boobu jàpp ko ba xam dana jeexam du jeex su fekkee ne jeex na baax na su jeexul nag mu yokk ca ñetti fan ci ne ko sëriñ bi teqale woon ci aljawhar moom mooy ni ma waxoon léegi mu ëmb ba noppi ba am yetti weer door a gis deret la dale ci yet ba juróom benn benn àtte la la dale ci bu ko gisee ci juróom benn weer mbaa ci gannaaw ba ba mu muy am doom ba tey àtte ñaareel la la jiitu ñetti weer nag mooy li ma wax léegi borom saraa bi nag moom la dalee ci moom ëmbee ba ba muy am ñaari weer foofu la jàpp ne day xool rek aadaam mooy seet rek bu ko masaa gis nam daan tollu jeex mu seet noona bu jeexee baax na bu jeexul mu yokk ca ñetti fan nga xam ne moom la dale ci yaari weer ba juróom benn da koo def ab dog da dale ci juróom benn ba ba muy am doom mu def ko beneen dog woo man jigéen joo xam ne taqattaxa daggatoona tuhruha laabam nga tu lafiqu dana tàppe ay yaama xaydiha fani mbërëgam ma faqat dong fa xaqiqoo na ngeen dëggal jigéen joo xam ne ni ko deret ji dikkale dafa maasiwul fan ya tegloowut day def bu dikkee tey bu ëllëgee du dikk bu ëllëgee mu dikkaat li ñuy wax jénnal daal noonu la koy def kooku day wàññi fan yi nga xam ne ca la koy dikkal te bañ a wàññiwaale fan yi nga xam ne du ko ca dikkal nga xam ne bu dee jigéen joo xam ne boobu yoon la njëkk a gis baax tam koy dikkale noonu day wàññi rek fan yam koy dikkal ba muy jeex rek su amee nag fukki fan a juróom ci taxul mu jeex nag na xam ne kon jàngoro la bu dee koo xam ne daana gis deret bi yoon nag mu gis ko te maasiwut day def tey mu génn bu ëllëgee du ko gis na waññi rek fan yam koy gis ba mu toll ne aadaam maanaam ba am fan yi nga xam ne bu ko masaa am deretam jeex su amee fan yooyu te mu jeex baax na bu yéexul mu yokk ci ñetti fan bu dee ko ëmb kii itam ni nga ko teqale woon léegi ci ba mu gisee deret ja ca la tàmbalee ci njëlbeenu ëmb ba ba ci ñaari weer boo toppee ni téere bi waxee wala la dale ci njëlbeenu ëmb ba bu ba mu am ñetti weer ci ni sëñ bi waxee ci jawhar ak dog ba tàmbalee ci ñetti weer ba juróom benn ak dog ba tàmbalee juróom benn ba muy am doom yépp àtte bi benn la ñu waxoon ne moom la yàggaay bay toll rek su fekkee ne moom ni ko deret ji dikkale day jénnal tey mu gis ko ëllëg du ko gis fan yam koy gis rek lay wàññi ba mu tolloog nañu ko waxoon mu jàpp ca noona fan yam koy gis rek lay wàññi ba mu tolloog nañu ko waxoon mu jàpp ca noona am na nag ñaari tegtal yoo xam ne ci la jigéen ji xàmmee ne deretam jeex na benn bi mooy li ñu tudde ak ñooy mi alxasatu ñooy day nekk ndox mu weex mel ne ndoxum ciment wala mel ne maniyu ndox mel noonu su jigéen ji gisee baax ba yàgg mu gis ko na xam ne kon deretam jeex na bi ci des nag mooy mu jël lu mel ne morsob sagar wala wëteen def ko ca biir sawukaay ba génn xool te gisul mu taq dara ci deret ba tey loolu tegtal la ci ne deretam jeex na su ko defee nag war na balaa tëdd nemmi ko boppam ba xam deretam jeex na wala jeexut ndax bu waree julli timis ak gee dal leen di julli bu tolloo ci fajar di bëgg a fenk itam mu dem nemmi ko seet ba xam ndax deretam jeex na am déet nga xam ne bu dee jamono yu koor mu daal di mën a jàpp koor ga bu waxtu julli suba jotee itam na nemmi ko ba xam ndax set na am setut ndax bu setee mu xam ne julli suba war na ko day ñëw ci deret wesin mu ne mooy deret joo xam ne jigéen ji daa am doom moo ko tax a génn nga xam ne am doom daal moo ko tax a génn moom itam mën naa gaaw a jeex mën naa yàgg-yàgg ba am juróom benn fukki fan waaye nag bu amee juróom benn fukki fan te jeexut na jigéen ci jàpp ne lii génn léegi jàngoro la daal di sangu te jullee ko woor ak def yépp saa yu deretam jeexee itam na daal di gaaw dellu ci jullee ko woor bu fekkee day jamonoy koor ba mu bañ rek ñu wax ne dafa bëgg a joteeg jëkkëram ragal ñu wax loolu rek tax mu bañ di julli ba mu bañ di woor na rafet rek pas-pas te dal dellu ci ndigal li nga waxoon ci bërëg ne mën naa jekki-jekki ne soteet daal di jeex fi saasa pereeti wasin ba tey noonu la mën naa jekki-jekki ne soteet daal di jeex fa saasa gën jaa yàggi laab mënees koo wax waaye nag mënees naa wax gën jaa néewi laab gën jaa néewi laab mooy jigéen ji buy seetee ci àtteeb shariha ba ne ko sa deret jeex na gannaaw ba lu gaaw gaaw dana amaat fukki fan ak juróom door a gis deret wala boog bu gisee deret dañuy jàpp ne jàngoro la waaye du dereti mbërëk du dereti wasin kon bu ñu ne gën jaa néewi laab mooy fukki fan ak juróom dañoo bëgg a wax ne bu yoon seetee ba ne jigéen ji deretam jeex na gannaaw ba lu néew néew dana ca tegaat fukki fan ak juróom yoon jàpp ne jeneen deret mën na koo dikkal waaye diggante fa yoon ne woon deretam war naa jeex bu ca tegee loo xam ne matul fukki fan ak juróom gisaat deret dañuy jàpp ne jàngoro la waaye du deret ju ñu wax mbërëg mbaa wasin di ko jox atte ba jàngoro rekk la gën jaa yàgg laab nag moom yàlla xam ne muy toll bu demee ba deretam jeex mën naa toogaat lu yàgg-yàgg te du gis deret ci rek na yàlla dogal ca moom jigéen ja ndax daa xamle mbërëg lan moo di ay atteem ak lu aju ci wàllu laab ga ca mbërëg ma ak bu dee dagatoo bi yoon mu dikk bu ëllëgee mu jëndal mu bëgg a wax nag ne bu doon wasin it noonu la li ñu waxoon ci mbërëg rek saye boo baamu ko ci wasin ñoo bokk ay atte ñoo bokk laab ga ñoo bokk itam ci bu fekkoon ne day dereti wasinte di def bu dikkee tey bu ëllëgee mu bañ a dikk def li ñuy wax jéenal at ba ñu waxoon ca su regalam day def noonu rek ba tey moom la ñuy waxaat ci bu dereti wasinam day def noonu